Sénégal Plus. man monument la magu xale yi. liiru kay jeexal na mun nga soo liiru moo gën day àggee ci jaan ci liiru rek day na. soo àggee soo waxee ay jaan ak yooyu dafa mel ni ay genre saboté wala yooyu del liiru rek. am na yoo xam ne jar na baale dama koy baale am na yoo xam ne jarul baale ndax man taalibe laa jullit laa yéenewu ma kenn lu bon xel. Ah, xel muy jooy xalaat ah, xool moom jeexal na waaye xalaat nga wax xalaat xel xalaat la voilà pour looy def loo at loo wat def nga xalaat ko at soo defee lii lay ci war a mën a fekk ëllëg ah la même dama du ma jeexal doo lekk lekk ba sàqamti ko jàll ba bët gis ah bët xëdd garaaw bu nga ko kii waaye ndogu ndogu sa waaye si heure ndogu jotee soo ndogul du baax non pinton tuuti tuuti tuuti non ceebu guddi fan yàlla tere man du lekk ceebu guddi soosu guddi kay moo tax ceebu guddi yàpp boof boof kër gi waaw waaye kër gi kër gi xale yee tax xam njaboot gi nitu mbedd laa moom <laughs> non bisaab looy jinjeer naan nii jinjeer kooku dafa am ñu ko soxla man soxla man bisaab laa soxla man ndax léegi damay far di tooy lu tax nga jinjeer naan nii jinjeer nii yow mii <laughs> sangana kay suukar suukar ñam suukar rek wala bër nga fay lekk ay dibitee bi ko yaramu jàmbur comme ni mun naa dem man kese wala léeg-léeg ma ànd ak samay copain wala yooyu su dee dama ànd ak samay copain mun jël ñaari kilo wala ñetti kilo waaye su dee man donc kilo rek baax man may bàyyi fal nga may ay polygame wala monogame man ma war a am ñaar ba ñett ba ñeent nga may ay polygame wala monogame man may bàyyi fal ah si ñëw ma de si ñëw ma ay benn ay ñaar de man mun am ñaar ba ñett ba ñeent man bàyyi fal la Angale? Yeah, nigga. <laughs> yeah. tuus. tuc. non man lépp lu xeex la rek xeex rek xeex rek dóor rek tuc. mbot ba xam mu sàmbat waaw. lépp moom a gënal ndax moom laa nàmp moom laa xam mooy suñu cosaan ay mooy suñu cosaan léegi moomuñu ko ñu ko jéggaane rek waa e daay làmb ji tam am na xaalis de da xaalis bi dee ko dégg bala nga caa jot bala nga caa jot étape par étape la du da nga ñëw rek jot ci de étape par étape la te bala nga àgg ca étape ba nga xam tax ngay am xaalis c'est grave bëri dóor yaa ma gën a soxla ah du ma la wax loo xam ne amul da nga ne bëri dóor bëri simple wala bëri dóor moo ma gënal non moo ma gënal moom laa jàng moom laa xam moom laa nàmp ma xool saalum bu am yàpp laay laay am à peu près am ñebbe akay neex bëgg naa ko trop moo ma gënal maafe ndax maafe bi diw gaa montre ah montre bi benn fan su ko joxoon fan su trop photo ci nekk ah sama fan su ko joxoon fan su mbalax li ma sol ba ci rab rab day mbalax mbalax ndax rab bi euh, su dee mbalax mun naa tëb mun naa fecc mun naa def lu ne ah waaw ah mbalax moo euh, rab bi moom damay kii rek xam nga rek xam nga ngaaka moom léeg-léeg moom mooy kiiloo ngaaka bi laan sama booy la moom may dugal ci rab bi léeg-léeg waaw king baaba ma bëgg la moo ma dàq teewul nag am na ni ñoo xam ne maa bëgg si trop ma ñu ma jaral leen ay xeex jaral leen xuloo suñu gisee lu ma euh, lu ma defee lu ko lu ma naqari sax day jaral xeex wala jaral leen siisu muy metti waaw waaye tamit man su ma la bëggee tamit vraiment tamit euh, lu ne mën naa ko ci yow ah géejawaay géejawaay waa Amérique waaw waa géejawaay nag fa laa dëkk nag fa laa cosaanoo fa laa juddoo nag tam nag géejawaay dara laa fa nag moo tax nag ma des géejawaay bu wax doy nga ay géejoo Pikine bu ma ko laajatu yooyu da nga ay géejoo Pikine géejoo yi nga may wax ay géejoo Pikine sama yoon waaye yow <laughs> lu wuli ak ambulance bu ma gënal ambulance Boucher te xëccu maa soto sequ lu ma koy kii lu ma seq moom Boucher sama rakk la ñoo dëkk géejoo yi kii wu ma jàmm Ama sama rakk la sama doom mu sama rakk la waaye Ama sama doom la sama lépp ju neex la làmb ju neex la vraiment làmb ju neex la ndax euh, Ama xale la bu nekk ci yoon dafa prouvé moo tax Modou Lo jël ko su prouvé lu Modou Lo du bëre ak moom comprendre Modou Lo tam ndaanaan la kenn doon tudd ndaanaan ndaanaan ku lu fat la ndax fii mu egsi nii ndaanaan tax mu egsi Modou Lo bëri ne mu ne te ah ni ñoom kon nag ndaanaan la waaye dafa xam ne li mu yor moom la Ama soxla te Ama it ah, xarit la ñoom ñëpp samay rakk la ñoom waaye nag ah Ama laa faral nag moom xam na lu Modou xam na loolu sax xam na ne Ama laa faral mën bu ñëw mu tulli mu génnaat kii gauche la gaaw lu may da ngay benn place bal bu ñëw mun na génn kenn du jàll bal bi su jàllee bi yow doo jàll yow mi yor bal bi ah way bal bi su jàllee yow mi yor bal bi tam doo jàll yaa ngi indi problème nag moo njaay directeur Abdourahmane <laughs> xam nga man tey xam nga ñu peut dañuy dégg maa moo njaay directeur moo njaay directeur xam nga soo déggee maa moo njaay directeur tey su ma demee Amérique tey vraiment gis naa ni may taxaw ni may jàppale ab drame tam wax ñoom ñoom ñu samay waay la waaye moo njaay directeur nag wax dëgg yàlla ba nekk ba ne moo njaay nekk fii comprendre moo ciy génn ci yu bari tamit vraiment te ab noonu lay def tamit samay waay ñoom ñoom ñaan samay waay la waaye moo njaay directeur ay moo njaay directeur kenn moom am naa combat la 15 mai wulli lu ma koy wax bis moo ko jàppee la <laughs> kay xam lépp dëggal xam nga gàmm dañoo bëree woon <laughs> mu am mu demee jox victoire waaye fii arène nationale bi <laughs> suuf sa bari na de ay su la quinze ñu xam lépp dëgg la waaw c'est normal mu ñëwee ma xale mag la moo tax day wol boppam moo gën a nekk xale moo tax man ñëpp mu bëgg soo amee noonu tam ñaar lay doon wala ñett wala ñeent man ñëpp mu bëgg tubaarikàlla macha allah loolu yàllaa ma ko defal kon nag sant yàlla la ak sant samay waajur voilà li ma leen di samay supporter naan waaj géejawaay gépp deen jóg te xam ne monument géejawaay moo xewle monument Guédiawaye moo xewle Guédiawaye gépp a jóg fu sama fan sa nekk ci àdduna bi dinañ jóg incha allah rabbi sooba yàlla moom xeexkat la man damay xeex moom dafa bëgg xeex man tam damay xeex waaye dañuy bu moo ko laaj non non incha allah man daal sama bopp laa xam maa ngi liggéey samay rakk ak sama ginnaaw waaw lu mu wax ci bi kay loolu kay loolu jarul wax kooku su biir la loolu jarul wax sama rakk la ñoom ñëpp ñoom ñoo ma bëgg combat yi sax ñoom ñoo ma gën a bëgg combat ku ci mel ni Balla ñoom Alioune Seye xale yi ñoom tout ñoom ñoom guy ñoom ñoom Pape Thiam Jackson xale yëpp xale géej wa yëpp ñoom mu gën a bëgg combat bi dama may jàmm fi dañ may sonal ci entraînement yi ndax dañoo bëgg combat bi ñoom ndax nag maay seen mag seen kilifa te man su ma neexoon sax toog bàyyi bëri jàppale samay rak incha allah baax na da ci kanam raw li bër amin yaa rabbana ay taf taf la ilaha illallah ay taf taf yéen a fi nekk